Afia FM. ay 5 4 milliards par an di bokk lu ñuy fay benn jaaykatu tissu fii nga xam ne benn conteneur lay wàccee par weer yaa ngi dégg euh, commerçant bi fii yor cosmétique wala jaaykatu karo bi wala jaaykatu euh, ngooñ bi wala jaaykatu bant bi mu mën a fay même taxe bi muy fay que usine bi nga xam ne day def chiffre d'affaires ay 4 milliards 12 milliards 30 milliards loolu duñ ko nangu donc ñi nga xam ne ay grandes entreprise lañ no seulement. dinañ leen taxé ñoom ñu fay plus ndax néew du doole yi mu nekk Grand Yoff seen taxation ñu mun koo wàññi mais da ngay xool problème euh, euh, patente yi patante bu jotee agent yi nan lay mën a ànd ak force de l'ordre naan boo fayul ñu tëj sa place moomu du liggéeykat kenn du ko toroxal ndax jamono neexul ñëpp gis nañ ne Macky Sall ba mu fi nekkee 2012 ak suñu jonn yàlla tey réew mi dafa gën a suux dafa gën a metti maanaam jafe-jafe yi dafa gën a bari donc ku doon am benn ku doon am ñaar benn sax amatoo ko xaaj bi ngay lijjanti jaaykat yi sonn nañ ouvrier yi sonn nañ jaaykatu kafe yi sonn nañ étudiants yi amuñu liggéey ñii jàng nañ ba am formation mais amuñu liggéey sunu yaay yi sonn nañ sunu paa yi nga xam ne dañoo retraité maanaam bu ñu yeewoo mënuñ si sax am téeméer bu ñu bàyyi ci kër gi dépense kon jamono bu tollee foofu liggéeykat yi li ñuy fay te ñu nekk ay petit contribuable da nga leen war a wàññil seen patante moo tax ñun suñu gestion liggéeykat yi ñi nga xam ne li ñuy fay bariwul ñi nga xam ne dañuy fay patente ay cinquante mille cent mille non seulement dañ leen koy wàññil mais mieux koo xam ne at bi nga war a fay mais bu ñu la nee da nga war a fay cinquante mille mois de novembre mais ñun chaque mois dañ lay wax fayal ñaari junni fayal junni nga dem perception ñu defal la reçu boo ko defee fukki weer fay nga fukki junni te yëgoo ko maanaam bor moom noo ko doxalee mu gën a nooy rek noonu moo gën parce que liggéeykat yenn saa yi dinga ñëw weer laaj ko patente fukki junni mu war a fay place am fanweeri junni war a fay ay employé am war a fay luwaas kër ga war a joxe dund courant bi cher ndox bi cher mu war a fay jàng doomam war a fay ay ordonnance war a yónnee dëkk ba mais loolu yëpp bu waree dajee ci benn weer day préféré sax nga dem nga tëj place parce que amul lum la fayee moo taxit ñun dañ leen di njàppandal ba li nit war a fay ñu koy doxal par weer nga ciy dugal ay junneeg juróom-benn téeméer rek nga xam ne fukki weer dina mat te doo ko yëg. mu ngoog euh, Las Badiane euh, sànq euh, xëy na laaj dugaloon naa laaj bi mais peut-être cette fois-ci d'une autre manière acte trois de la décentralisation la ñu wax wax nga ko ay communes de plein exercice lay doon. Euh, ki nga xamante moom moo jiite commune bi également may nañ ko mu dem ci ay pexem ngir mën a ut ay partenaires ut ay financement ailleurs euh, pour mën a dooleel li nga xamante moom mooy euh, commune am agenda bi ak adresse bi est-ce que mu ngi ak yow le candidat de la coalition avec liggéeykat yi ak tamit ndax jàpp nga ni tey avec le budget de la mairie de Grand Yoff on peut beaucoup faire au niveau donc de la commune waa mais képp koo xam ne xam nga Lass Badiane xam nga ne doomu gox bi la man liggéeykat laa moo tax ma jël sama liste tuddee ko avec liggéeykat yi ay liggéeykat laa àndal Lass Badiane Grand Yoff fii loué na fi bâche yor naa fi entreprise boo xam ne da doon loué bâche ak chaise ak sunu yaa ngi dégg Lass production ñëpp xam nañ ko ci tëgg làmb tëgg naa fi làmb écurie Grand mbooloo bi école Grand Yoff 2 école marché bii man maa bokk ci pionnier ñi ko créé maa ngi ñoom Issa Dieng ak ñoom Bëgg Fàllu fexe mbëru grand yi fi nga xam ne dañoo nekkoon ci biti ñu ñëw ñu delloo si leen ñoom Nandeek ñoom Saliou Maane ak ñoom Mobile ak yaa ngi dégg ñoom Saliou général yàlla na ko yàlla yërëm ñu fexe doomi grand yi fii ñëw esportif yi nga xam ne dañoo nekk Grand yof fexe nañ ba ku ci nekk ñu mën loo utal club nga nekk première division wala nga mën a def test à l'étranger ñëpp xam nañ ne Lass Badiane day tukki macha allah donc wàllu partenariat man jànge naa fi dem naa France jàngee naa fa liggéey naa ci entreprise de communication bi gën a mag donc ci wàllu relation xamel naa ay nit yu bari mais du man rek ci biir liste bi ma nekk am na ci ay entrepreneurs yi nga xam ne Grand Yoff lañ nekk ñii dañuy dem Dubaï ñii dañuy dem Chine yaa ngi dégg ñii dañuy dem France ñii dañuy dem États-Unis ñii dañuy dem Canada di jëndi ay oto donc ku ci nekk ci biir liste avec liggéeykat yi am nga ci xam-xam am nga ci ay partenaires yi nga xam ne. donc ñooñ la ñuy dem seeti ngir lépp loo xam ne bëgg nañ ko def Grand Yoff ñu mun cee jàppandal boo xoolee su wàllu sportif bi maa ngi koy wax sànq yenn saa yi da ngay gis benn agent de jour ñëw ne la wax sunu rak yi jox leen ma 3 million 4 millions ma yóbbu la Europe ñun d'accorduñ ci loolu parce que fii nee naa la ay néeru doole ñoo fi nekk ñun ñëpp ay néeru doole lañ maire yi ak paa yi ñooy mujjee teggi seen natt pour mën a jox booy ñu mën a tukki. ñun dañuy fexe de centre de formation yi fi nekk ñi amul këyit ñu am këyit ñi am këyit ñu jàppale leen mooy ñu def synergie partenariat ak club yi nekk bitim réew muy wàllu sport yi muy wàllu artistes yi muy wàllu ouvrier yi muy wàllu artisan yi ñu def partenariat ak waa bitim réew ñu mën a bu nekkee artisan yi ñu mën a dem ay foire bitim réew artistes yi ñu mën a dem ay ay ay spectacle bitim réew sportif yi ñu mën a dem tàggatu bitim réew am partenariat ndax bu ñu leen envoyé lettre d'invitation mairie bi mu ñu leen jàppalee ci billet d'avion loolu rek la laaj frais visa Schengen quatre-vingt mille francs la frais visa États-Unis mooy cent cinquante mille donc ñun bëgguñu ñuy nax suñuy rak bëgguñu ñuy rax nax nax suñuy mag bëgguñu ñuy nax waa Grand Yoff dañ leen wax les vrais chiffres pour am visa Schengen jafewul na nga am këyit ki lay invité am kayit yu baax yaa ngi dégg mu am lettre de garantie nga dem fay frais quatre-vingt mille ñu defal la visa dix jours wala quinze jours nga dem tàggatu wala boo nekkee artiste def sa spectacle ñibbisi donc ñun dañoo bëgg suñu diggante ak waa Grand Yoff ni ñu ko tàmbalee mooy fépp fu ñu dem di leen wax dëgg parce que ñun bokkuñoo ak politiciens yi nga xam ne ci nguur gi lañ nekk sàcc alalu waa Grand Yoff sàcc alalu nguur gi depuis 2012 kenn mosu leen xam Grand Yoff élection ñëw na. ñii ay goro Macky Sall lañ ñii Macky Sall lañ àndal avant Macky Sall di falu kenn xamu leen mosuñoo jël cent franc may ko doomu Grand Yoff mosuñu jël cent jox ko juma wala église wala commerçant Grand Yoff mais nguur am na ñu sàcc alalu réew mi ñëw élection jot ñu ñëw jël ay 4-4 di fay nit ñi 3000 ak 5000 dëkk bi yëpp ñu affiché ko sàcc alalu réew mi bu ko ñëw tour Grand pour ñu fal leen pour ñu continuer duñu sàcc waa Grand na nañoon dañoo lànk kandaare ab sàcc kenn du ko dénk mairie te ñooñu dañoo sàcc alalu réew mi képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Macky Sall Macky Sall nekk sa ginnaaw ñu jox la xaalis pour nga ñëw Grand Yoff campagne na la wóor ne alalu Grand ak alalu waa réew mi nga sàcc parce que ñoom seen salaire mayu leen ñu def lii ñuy def nee naa la ñun ñëpp dañuy fayeeku salaire bi mayu leen ñii ñuy def moo taxit ñun ñu ànd ak liggéeykat yi ngir ñu mën a soppi Grand Yoff ngir mën a Grand Yoff mën a jëm kanam euh, daanaka ñu ngi ci njeexitalu émission bi Lass Badiane euh, mais benn laaj rek euh, par rapport ak Grand Yoff ak terrain bi ak campagne bi de façon générale naka nga jàngatee taxawaayu candidats yi maanaam les douze candidats au niveau donc de Grand Yoff ban appréciation ngay def par rapport ak situation bi nga xamante moo am ci Grand Yoff ci campagne bi waa jërëjëf man moom situation bi ma ciy def mooy santaat yàlla ci jàmm gi ñu am biir Grand Yoff parce que man wax naa ko euh, ba ma ñëw fii ci plateau bi ma ne man Lass Badiane ak sama liste avec liggéeykat yi parce que liggéeykat talul xuloo talul xeex liggéeykat day xëy fajar dem liggéey bu wàccee jaamu yàlla toog këram ñun moo tax it defuñu ay caravane yoruñu ay bongo yoruñu ay videur yoruñu ay nervi ñun ci place yi lañuy dugg ci kër yi lañuy dugg ñun borom kër yi lañuy waxtaanal ñun waa Grand Yoff la ñuy waxtaanal donc nag jàmm ji fi am dañuy ñaan yàlla mu sax ba élection yi passé parce que ñun ñëpp ñoo dëkk Grand lii day jeex bu altine ku yàlla may ndam nga gérer ñeneen ñi ñu nekk ci leneen parce que ñun ay liggéey liggéeykat la